wala di xayri saatiyal akdaaru watantaxi li busaaril akdaaru nañu bokk ci jullit yépp tey jox ndigal bokk taalib yi murid yépp ñeen fàttali ci gàmm gi fàttali ñu ko sëñ Tuubaa bëgg yoon am nañu ko nga xam ne ci jamono gàmm kenn du xaj ñëpp dañuy def kon foofu ay mën fu la waaye dafay jóge di ñëw mu mbooloo moo xam ne kenn du ko mën lijjanti kenn du ko attan doone nag ñaanal ko defagul ci ñun bëgg ñuy wesaar ko defuñ ko sax waaye nag ñu gën koy fonkaas am na fii lañ bëgg a leer loo xam ne man sama gàmm bopp ji ma baaxal def Tuubaa moom man ko si ñuy defee moo ko daa defee rek amuñ ci lu yokk amuñ ci lu te ma mën lépp daanaa ko ci def ñu ma dëkk ñëpp xam nañ ma si loolu bu ñu bari ci man lañu daa jàmmoo yeneen jàmm yi am ci Tuubaa yoo xam ne bii ci saan lañu it maa ngi sañ yooyee bëgg ko ne def ko te kenn kenn bañu wacc ma daa gàmmoo di di ñëw fii xëy na dundal ko fuñ ko daan ñu di ko fa def sama kër bopp yi ma am gàmm njaareen ji itam maa ngi ci saan gàmm yëpp def ko ñu ko fa laaj ak ci jumaa ja fi nga dañ di ko def ku ne ku xam ne léegi maa ngi leen di soññ ñoom ñu yesaraat loolee ku ko daa defe si nanga ko fi defe si sama daar yi ma am yëpp ak sama kër yi Cees ak yi ci Mbuur daar yi ma am ci sow yi ma am ci penk yëpp fu ci ne gàmmukaay la boo xam ne ñu dëkkam ñoom xam nañu loolu ñoom ne ku ku fa gàmm ji da nga fekk ñu ñu ñu duleel ko ni ko sëñ Tuubaa leen diglee ñu tax si ma xool bi suñu dañu koy léegi ndigal li may wax li may wax maa ngi jox ndigal nag mooy di kër yi nga xam ne dañ ko sañ ci def ko kër yi sañ Tuubaa ci dëkk bu mën a doon ci réew bu mën a doon nag kër yooyu ñu ko daj yoon ba def ba def fa kër ya liggéey na ko mooy def suñu kër ñu waaye maa ngi di sant ñu def fa gàmm gàmm bu wóor boo xam ne dañ koy fonk nañu daj yoon ba def fa kër ya ñu saxal fa gàmm wala di xayri saadiyal akdaaru wa tantahi li busaril akdaar